pour Benno Bokk Yaakaar wala Pastef. non Mame Boye dafa nekkoon candidat la candidature de Benno Bokk Yaakaar moom pour rallier Benno Bokk Yaakaar wala pour rallier Pastef non Mame Boye Diao il a rencontré le président de la semaine dernière am na ay discussion yu nekk di am. Hmm. Euh, xamaguñu lan lay lan lay joxe. Hmm. Euh, euh, ndax dina dellu si. ci biir coalition bi wala dina dëggal boppam continuer. Ah, euh, président rek lay waxal wala day ak président di wax ak Ousmane Sonko. président lay waxal Macky Sall la nekk di wax mais attends yow est-ce que yaa ngi dégg li may wax man. waaw da may déglu man duma ma xale waxuma waxu xale dama ni. Hmm. moom dafay def candidature am dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar wala say day def candidature pour rapprocher wu de Pastef. posé wu ma question pour rien. ah vas-y man kay mënuma tontu ci question parce que loolu. xam ma ci dara ma ni mi ngi wax ak président mais président rek lay waxal wala day wax ak président di wax ak Ousmane Sonko par personne inter damay laaj rek. ayoo ah, loo jàpp. non je pose des questions damay analyser. ah non ici c'est moi qui pose des questions. et puis Mame Boye euh, dans l'échiquier politique la gën a jege wala wala Pastef. Mambo il est de Benno mais. élément Macky Sall élément Macky Sall non defal ndànk élément Macky Sall la wala complice Ousmane Sonko la. parce que attention affaire yi aussi boo xamul lu ci biir doo mën a doo mën a parce que Sénégal la problème mooy lu bari dañuy analyser te xamuñu du xew te politique avant muy nekk affaire du nit ak nit la. xam nga baax li ma la bëgg a wax. ma jox la benn exemple Alassane Ouattara su bëjjee déglu woon li ko Bongo waxoon Alassane du mos a nekk candidat Côte d'Ivoire ba fay nekk président yu bari yooyu gis ci biti ñu yaakaar ni politique la problème mu nit ak nit la. xam nga limu la bëgg a wax nit ñi dañuy am yeneen i problème yaa ngi dégg ñu ñëw détourné ko ñëw wax leneen ci langue politique bi fekk le fond du problème du loolu. et le fond du problème entre Macky Sall ak maam booy Diaw du affaire u Benno Bokk Yaakaar ak i candidature. c'est loolu moom du ma la ko wax mais du loolu. dañ koy reprocher des amitiés douteuses. dama ni le fond du problème. Hmm. entre membre Boye ak Macky Sall doy affaire candidature. mais junjuñu lan la mooy problème bi. mënuma la wax loolu. mais mais xamal ni mais wax naa la ci lu bari nag soxna si. posé naa la ay questions wax naa la li man mënuma la wax lu ëpp li nag soxna si ah laaj naa la dama la njëkk a laaj ne la. Mame Boye jaw dafay positionné par rapport ak Benno Bokk Yaakaar wala Pastef loolu laaj naa loolu wala déet man la est-ce que dafay discuter ak Macky Sall rek wala day discuter ak Macky Sall di discuter ak Ousmane Sonko par personne interposée loolu aussi beneen question la ñu dem nga pouse ma ba ne ma ba ma ne la le fond du problème entre Mame Boye Diaw ak Macky Sall du problème candidature wax naa la la la partie Mame Boye Diaw hmm. lan mooy doon issue bi entre moom ak euh, Macky Sall parce que am nañu jàpp ne s'il n'arrive pas à réconcilier les positions l'issue peut être fatale non loolu moom xaw ma ko lu ma ci dugg mais daal li ma la wax boo ko taqalee di am ay idée un ci di xew ba pare et puis Mame Boye Diao euh, candidat où est le problème man des fois aussi je me demande c'est quoi problème Mame Boye Diao mënul yàqal candidat Benno Bokk Yaakaar dara parce que Mame Boye fii FM déjà est moo fa ëppale booy bi nekk LONASE nii Doura boobu Doura bari boobu il semble que non donc je veux dire Mame Boye Diao candidat. ah Mame Boye Diao. Ah, je ma dama ni. Ah. dama lay expliquer dama lay wax. Mame Boye Diao fii FM la non. waaw man j'ai wax nañ ma ni booy boobu ñu nommé Lonase am na doole foofu tu comprends ce que je veux dire l'idée aussi c'est pas de voilà ku bëggul ñëw mais ngeen bàyyi ko. mu dem affaire bi aussi c'est pas de comprends nga baax li ma la bëgg wax. je veux il n'est pas dit que parce que Mame Boye Diao nekk candidat rek candidat Benno Bokk Yaakaar du gagné loolu fan lañ ko bind. d'ailleurs justement candidat Benno Bokk. je te donne un exemple Chirac ak ak Balladur dem nañ dans la même famille politique. élection présidentielle contre Jospin Chirac gagné te moom moo ko jëloon nommé loo ko premier ministre mu nekk bras droit donc